problème na de sukkal ko waaw su weeru koor bi foo jëndul tàndarma jëndoo suukar ñu mere la pour ñoom defoo dara ah doy na waar de man daal njëkkee doy na waar xam nga man daal dama xalaat dëkk bi dafa nekk sama xel daal dafa nekk ma jënd tàndarma jox ko sama njëkk tëral leen aw ma ñaari kees paquet suukar bi baa ma jënd tàndarma moo gën a yomb dëkk bi dafa metti danañ dem marché daa ki mooy jaamaaso babel dem ba jaam du ko faal ak maa wa joor eh. sama yaay joloor sama waaju mënoo ñaaw Ndiaye xamala laa bëgg nga ci boole léeg-léeg. waaw. sàngoonu biram jigéen dàngoonu mot mbaay. mbaay sàngoonu biram jigéen borom ngoonu daj daj mbaay. mbaay kaay ma la. waaw waaw Thiam. xam na ne maa moom feneen foo bokk. foo bokk Thiam. Thiam waaw. nee naa la xam sa bopp dafa neex ci kaw nga xam say maam. loolu dara fay loolu. gis nga Ndiaye. Hmm. dara gënu maa mën a neex ci kii nag mooy sa ñëw ren. waaw noonu da ngaa xool fa ma bokk. damaa bokk ci yéen nag nga fay ànd ak man. <laughs> ah dama bokk ci ba loolu jaame caam bëggoon naa ñu waxtaan na gëm gannaaw yow sama waay nga kaay dama laa bëgg a wax baal xaram te nga ñëw ma wax la dañu waxtaan te maa may ma dàq fii koor ñëw rek sama doomu ndey nga kaay dañu waxtaan yow sa dinañ juboo cam waaw waa ji mënoo ñaaw donc wen danañ ñaaw loo xam ne dafa am des caamas ñu bëggoon ñu waxtaan ci lool xam man sama waay nga kenn wentuwul nekk ci weeru koor mhm. jàmm dafa war a bari mhm. koor suñu borom lam ca soxla mhm. moo di ay wa nañ ko jël lépp takkal ko mhm. nee naa la safara gëla nga xamante ni suñu borom moo ko sàkk sax mhm. weeru koor dañuy seddal lépp ba weeru koor jàll waxatuma la ak àdduna sii tayit doyen mi yéen a bokk benn deret yéen a bokk ndey yéen a bokk dañuy waxtaan rek déglu xam nga lan la bu fekkee da maa jëlee fii di indi fii dama wax waxi kii ko waxati dañu waxtaan rek xam nga xam nga xam ay jàmm booy ay ba ci weeru kaaru jat ngeen mën a jaamoo sinon lépp lu ngeen war dañ koy dajale daan ko xëy ca ca ca ca tookóor ma lu leer laa la wax bu dee kii rek waaw bu dee kii waaw sama kor jaratul muy baax xam nga ndax lan lu ko fi jar caamaas kay lan boo ko fi jar kii da bët bu muy xoolee sama yamale xorom xam naa ko muy sama soxna si bët yi muy xoolee sama jarbaat xam naa ko bët bi mooy xoolee xam naa ko. Eh, eh. yaa ngi dégg. mani dama nag mbiri doyen. mani samay sa làmmiñ eh, justement ak justement yëpp sa làmmiñ laa ba nga supprimer ci sama tur man doyen man dama la koo ñaan lillahi a rasuli xam nga man nag may jaay li moo ma safut man boo ma dee jaay di jëwal. Ah, ah, ah, non déglu ma rek. booy wax na nga yem foofu wax. man li may wax. gratuitement ndax sa mënoo mënoo ci dara yow. waaye mën ngaa gis. ngéwél boo ma ko dee jaay. moom wàcc na ko. waaw léegi ma wax. ndax man eh déglu ma dama ko dégg mooy mbaay mbaay man jaala ku ma jokka débb ku ma jokka ramata ku ma jokka mooy seen maam. ramata waaw. ramata ramata dama bëgg nga téye ndax man nii boo ma jaayee ngéwél loo ma jaay ci ngéwél wàcc nga ko kuréel ndaw Fadé Mbaye yaayam fa demba demba dam fall moo ranam fanal bii ma def ca wàll wa dagana sama maamay jàlla way dëpp jàlla way daan daala borom loo ma def ma def la man loo ma jaay nga waaw léegi dëgg kooku dama bëgg mu supprimer xam nga ñooñu ñëpp fenn jàmm ah, a neex waaw ne ñi ngay wax ñëpp daa ñàkk ngor rek waaye moom moo ne maa ko hébergé de waaw may ma may ma daa ñàkk ngor rek lépp tojul fenn xam nga luy mbir mi mooy ngeen bokk ndey bay ndax kër gi lépp da cee xaj bu dee man sama waaw waaw bu dee man sama paar rek nga soxla waaw sa rek nga soxla pour sama juma jëmm ji sama paar rek nga soxla man dama am kilifa kuy sa kilifa man dama am kilifa amul lenn loo xam ni dinaa ko def eh, ta Jojo Mbaye yemale xol dama ñàkk fayda Jojo Mbaye mooy sa kilifa de góor baax na jigéen baax na di kilifa de kilifa du tuut da nga ko eh eh ko xeet ma ne. déedéet ah déedéet da ngaa xeeb sama kilifa. kan moo ko xeeb. ma ne. donte que maay góor waaye mooy jigéen da nga ko xeeb. barke sëriñ Bulu Kelen kama xeebu ma. ma ne ma ne. lii nag bu ma ci gis nga nag yow mbay bañ. Sambay Rasu waaw yëpp Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye ba ma ma développé Ndiaye bàyyi ma waaw léegi comme que kii dafa naqaree ma ne bu Koungheul bañ. Sambay Rasu Ndiaye bàyyi ma Ndiaye Ndiaye Ndiaye. waaw xaaral ma wax la Ndiaye. déglu déglu déglu su ma ko jaru ko doyen comme que kii dafa waaw déglu ma xam nga yow sama waay. waaw dara ma ma fekk la foofu rek. dafa ndànk dafa ndànk xam nga. Ndiaye danga ma bàyyi de. xam nga sama waay. Ndiaye. te kii dafa naqari waxal kii dafa naqari waxal danga ma bàyyi yow yaa danga may déglu Njaay waaw déglu naa Njaay booy jubale kenn kat yi daw di reg regi danga may bàyyi ndax dégg nga li ma wax def nga mën a naqari lool. waaw kay kay wax kay naqari déedéet kay wax la kay naqari waxal. nañ dem dara Abdou Khafour boo taxaw ma lépp fay fan yéen. kii dafa naqaree wax man dem sama waay nañ dem. taxaw nga rek mooy lépp naa naqaree wax neexal wax te yaa ñàkk fayda. neexal wax nan dem sama maam bàyyi ko Burkina. waaw nañ dem sama maam Burkina la bàyyi ko sama maam da cee jox sama maam daa jox ci njëwal Burkina Faso la bàyyi ko. waaw nañ dem jaru ko kii daa naqaree waxal ñëwul ñu dem ñëwul ñu dem waaw ñëw ñëw ñëw ñu dem yaa ngi man su ne dama xam ne lay def ak moom xoolal yokk gis nga dana mën a lekk lekk soo mënul lekk nga baax. sonn naa. Eh, eh, koy xuloo lan la ah xam nga fu nga nit ñi dañoo woor. xam nga lu ma neex ci yow bu damay jàpp ne bu lu weeru koor ngay gën a garaaw nekk te sa sa doole say feem ci weeru koor nëppe bu mun la gisee sa xol de si xam nga yow naar américain nit day am naqar nga yokk ko naqar ba naqar ci xam nga lu ma bëgg nga may ma sama jàmm dégg yow yaa ngi gis maa ngi ni jógee xewu nday jale njaay la nday jalee nga mat ma nit ñaa ngi ko sama sama sam waxuma la dara waaye xew ma borom xew ma sax la ma sañ sañ sa sagul genn wàll da ko ci suba ba tey xam nga ne ñii gàtt dañu àq. xam nga laa bëgg laaj. xam nga lu ma bëgg. lan laa bëgg laaj loo may laaj. kon yow li nga demee xew ma bëgg ni nga noonu nga ñibbisee. yow may ma jàmm te sànq may dugg si maa ngi dégg ngay wax yow koy waxal xar mi ngay waxal léegi da ngay bëgg a dox. déedéet talaay biir bee ci biir léegi di mel ni pël-pël ci biir laa doon waxal. talaay biir la. doyen piccam ramo tamit. nii tuuti da nga ñëw fekk ma toog ci kawam gis nga. xam nga yow woote nan ma ci loo xam ne dama ne naa bàyyi ba nga ñëw waxtaan ak yow. mooy Ndiaye ñëw di ne naa day fi mystère ak caan koot li ma jàng jàng ko. kuy Ndiaye. waaw waaw lii la toppatam taan boobu. kooku doon wax naan naa ko fëtal yële. te ci waxuma la boobu may ma la ci. kibar ki démb la génn fii jàkkaarloo man naa maa yaay waaw eh, eh, eh, yemale damaa bëgg nga fëtal ma na ko damaa bëgg nga rek la du ma sa ba jënd ko. laa ilaaha la ma ko dootu ko du ko nettali doomu aat. ci xam nga lu bu ma wax waxi kii ba muy wax ak yow ba ngay wax muy tontu nga ma ko waroon a rayal mu doonut néew. ndax daaral nii ñu dem nga ndogu daaral nii waroon nga ko rey.